alhamdulilah alkarim silmilan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saahani li watani bihi nafa ma anfani assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki yi ñoo leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ñaanal mu am benn laaj boo xam ne dañ ko bëgg leeral jëlee ko nag ci borom xam-xam bu mag muy euh, Cheikh Mouhamad jaay di euh, nit ku yàlla may xam-xam te léppam tegu ci njàngaleem yonante bi alayhi salaatu wasalaam tegu ci alquran ak sunnas yonante bi sallallahu alayhi mel ni dafa am ñoo xam ni dañuy laaj li nga xam ni moo di feet yi nga xam ni moom la ñu tuddee Saint-Valentin te ñu koy def ci la 14 février bu dikkee euh, ñu bari di ci sonn di ko feete ñu ni feetu bëggante la daal ci la nit di gën a mën a wone ak mbëggeelam ak ki nga xamee ni moom la bëgg feet googu nag mi ngi jóge ci rome rome yu jëkk yi mhm. yu jëkk yi foofu la jóge woon ndax ñoom dañoo amoon jenn yàlla joo xam ni mi ngi tuddoon Loberkilia Loberkilia moomu nag wala lorkos dafa nekk yàlla ju rëy ci ñoom nga xam ne la 15 février saa bu dikkee dañ ko daan rayal ay xar ak i nag ak lépp loo xam ne daal euh, dañ ko ay màggal ngir wane ni moo leen di aaral seen jur gi moo leen di aaral seen alal ñu di ko màggal ci bis boobu ñu dem ba ay jamono nag ki nga xamee ni moo ko jiite doon buur ba di wut ay militaire ñu dem ci barab di ko xeexal waaye nag mu doon tere militaire yooyu bu ñu demee mbaa bu ñu dem bu ñu takk jabar ndax bu ñu takkee jabar nañuy wan a war a wane ci njàmbaar ak góorgóorlu bu ñu takkee jabar seen xel day dem ca seen jabar yi ba tax duñ fa mën a wone ak njàmbaar mu daal di tere benn militaire buy xeex bu mu takk jabar am ca nag koo xam ni dafa tudd volontaire moom nag daldi di xëtt yooyu ba am koo xam ni daf doon bëggante ak moom bi nga xamee ni nag buur bi ci boppam dégg na loolu dal koy jàpp ñu àtte ni dañ ko war a rey waaye nag ñu tëj ko bi ñu ko tëjee euh, ki nga xam ni moo ko tëjlu ca biir kaso ba mu daje fa ak doomam bu jigéen bëggante ak moom waaye teewul nag ñu rey ko daal ñu ngi ko rey ci le 14 février euh, deux cent soixante-dix ci juddu yonent yàlla isa alayhi salaam nga xam ni kon feet gi moo jiitu dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir bi loolu amee nag ba nga xamee ni ci boppam rey nañ ko ngir sart yooyu nga xam ni jéggi na ko waa dëkk ba ñépp nag dal di àndandoo wane seenu naqar daal di takk ay morso yoo xam ne yu xonq la ngir wone dereti kooku nga xam ne dañ koo rey ci mbëggeel te mbëggeel jaral ko loolu muy Valentin ci bit boobu sax lañ ko tudde saint arab yi di ko wooy xaddiis aji sell ji waaw saint mooy ku sell ki waaw ci bis boobu lañ ko ko tudde saint Valentin rey nañ ko ngir bëggeel léegi nag ñuy takk ay morso yu xong di ko naqarlu di joxe ay fleur di wane seenu mbëggeel ngir wax nañ ni kii kat lépp luñ ko defal ci lu mel noonu jar na ko ndax moo dikk ngir ràmmu si mbëggeel moo dikk ngir won nit ki li nga xamee ni mbëggeel ci boppam war na ko jaral ba tax euh, ñu rey ko boo demee ci européen yi ñi bari ci réewi occidentaux yi feet gi bu dikkee dafay mel ni feet la goo xam ne ni dafa neex suñu boroom te neexul yàlla nag ndax ci ay yéefar la jóge ñooñu du ñu woon ay jullit su ko defee nag euh, prothèse yi nga xamee ni góor mën na koo jëfandikoo digganteem ak jigéen ba bu àndee moom du ëmb nga xam ni bis boobu dañ koy maye ni lu neex waaye ci diggante góor ak jigéen ci boppam na ko def di ko may ci police yi ak gendarmerie di ko yóbbu ci duus yi ak ci marché yi ak fépp foo xam ne mbooloo ci boobu dafay daje nu ko fay julli ngir ñi jël ko man koo jëfandikoo ngir rek mën a màggal feet bu bon googu euh, mu nekk loo xamee ni law na ba agsi ci jullit yi ci jullit yi ñu ci bari ci boobu mu jànguñu xamuñu waaye ab jullit wërta roy ab yéefar ndax yéefar la muy def suñ boroom ci boppam gërëmu ko te suñ borom wax na ni yéefar ci boppam amul kilifa amee kilifa saytaane ci boppam moo di eh, kilifaam suñ borom tabaraka wa taala wax na ni wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka xubbillah walladina amanu ashadu xubban lillah nee na am na ci nit ñoo xamee ni dañuy fekk loo xam dañ koy wutal ndend mel ni lu ñu jàppee ni yàlla seen boroom bëgg ko bëggeel goo xam si dafay tar lool euh, nu raw ni ñu war a bëggee yàlla mu ne waaye ñi nga xamee ni ñoom ay jullit lañu de nañu bëgg yàlla ci boppam moo gën a tar ñooñee seen cofeel ga ak seen bëgg la muy tartal ak la muy rëy rëy bëgg yàlla ci boppam seen cofeel ci seen boroom ci boppam moo gën a tar moo gën a metti su ko defee kon bëgg yàlla la ab jullit war a def waaye wëtt bëgg loo xamee si loola mën na koo jural tey jii lor waaye mën na koo jural itam ëllëg lor kon seebalante ab jullit waru ko feetu araam na ab jullit am na feet yu war a feetu te ku koy def yaa ngi roy ab yéefar te ab yéefar suñu borom la mu ko dig moo di safaan wa wal iyaasu billaahi moo tax suñu borom tabaraka wax ci alquran yi laa yattaxidul muminuuna al kafirina awliyaa min duni al muminin wa man yafal dalika fa laysa min allahi fi shay nee du jaadu ci ab jullit muy fopp ab yéefar di méngoo moom di ko roy ci menn mbir mu man doon bàyyi roy jullit ya nee képp koo xam ne nag roy nga yéefar yi bàyyi fi roy jullit yi amuloo benn cër ci suñu boroom suñ borom delluwaat wax ci alquran ni yaa ayyuha alladina amanu in tutiu fariqa min alladina utul kitaaba yaraddukum baada imanikum kafirin yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla euh, bu ngeen toppee lenn ci yahuud ak nasaraan te moo di ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téere euh, daañu leen génne ci seen gëm yàlla gi dugal leen ci ak kéefër ndax ñoom kat topp ñu yàlla topp ñu yonant bi sallallahu alayhi wa mel ni borom bi tabaraka wa taala laaj mu ni wa kayfa takfuruuna wa antum tutla alaykum ayaatu laahi wa fiikum rasuluhu wa man yaatasim billahi mu ne naka ngeen di wedde te yéen ñu di leen jàngal alquran naa lii la yàlla wax lii la yonant bi wax lii la ko digal lii la ko tere lii lañ sant jullit yi alquran du noppi ci loolu waxtu wu ne mi ngi koy baamu ñu ngi koy waxtaane di leen ko fàttali ngeen xam li dagan xam li araam ba noppi nag bàyyi fa li nga xam ni moom la sama borom santaane di topp yéefar yi koo xam ne nag dangaa jàpp ci yàlla ak yonentam des na la gindi teg la ci salaatal muttaqi ndax alquran rek moom la sëriñ Tuubaa ni walladi man ihtada bi hadihi naa la huda wa yaxtawi alfawza gada za ismatin mi niqamin alquran moo di téere suñu borom tabaraka wa taala bi nga xam ne képp koo xam ne dangaa jube ci ak njubam am nga ak njub ci nee na di nga am ak texe ëllëg su ko defee kon jullit na foom nagu bëtam wii teg ko ci alquranul karim xam ni am na leneen lu mën a feetoo lu lu feet boo xam si dafa araam moo la 31 décembre bi nga xam ni ñu ngi koy def ñoo yem képp ñu ni sax bu dikkee jigéen ñu bari ci la ñuy ëmbe ëmbin boo xam ni neexul yàlla neexul yonant bi ay doomi yàlla yu bari sosu ci loo xam ni neexul suñu borom subhaanahu wa taala neexul woon ba nga xamee ni loolu amut waaye kon feddaliku na ci jamono bi nga xamee ni ñu ngi feetu loo xam ne suñu borom ci boppam gërëmu ko yonant bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Madina dafa fekkan ñuy feetu ay bis mu ni leen lu ngeen jublu ci lii ñu ni ko ñu ni ko dañ koy màggal dañ koy feetal mu leen yàlla wooteel na leen ko ñeneen ñaari bis yu ko gën muy feetu mm, korite ak feetu euh, tabaski moo tax sayyidina abu bakar sadiq radiallahu anhu mas naa am benn bis mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga bi mu koy jox Aïcha booba Aïcha du mag mu fekk ko moog yenn ci xelay arab yi ñuy woyantu Seydina leen daal di koy tere Aysa ni bàyyi leen li ngeen di def yonent bi ni ko bàyyi leen leen ndax kenn ku nekk am na bisub mbégteem bisub iidam ci ñun lii mooy suñu iid kon dañ leen bàyyi ñu foo ci loo xam ne lu neex suñu boroom la kon ab julit dafa war a yem fa ko yàlla loo waaye war a moytandiku lépp loo xam si lu koy xëcc la jëmale ko ci safaan ba te xam ngeen ni yéefar yi ñoom kutiba alay annahuma tawala fa innahu yadilluhu wa yahdihi ila iblis moo di seen kilifa te iblis moomu dañ ni képp koo xam si da nga koo topp te dëppuloo fam lay jëmale rek moo di sawar woo xam ni wu ñu wax sair la waaw kon daal araam na ci ab julit mu di ko feetu mu ci rey dara mbaa mu ci wane mbégteem ngir wane ni lii kat li ko waral moo di feet gi nga xam ne moom la ñu tuddee Saint Valentin kon daganul daal ci ab jullit wax dëgg yàlla mu di ko feetu kon am jullit na yem fa nga xam ne fa lañ koy yemloo ah te bàyyi fa nga xamee ni euh, dañ ko koo tere su ko defee texi àddunaam ak gu laaxira mën na cee sosoo ci dootu jeex ba mukk ni yàlla defal tawfiq defal leen ko defal ko mboolem jullit te suñu borom tabaaraka wa taala boole ñu ci ña nga xamee ne bu ñu déggee ay wax la ñuy seet la gën a jub ci boppam ñu topp ko ci moo di dëggu yàlla gi waaye itam bàyyi ay neen li ma doon defal waxtaan wi seen mbokk Ibrahima Khalil ñang asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا